donc bi sunu gan Amadou Lamine si ñoo ko gisandoo dégg nga euh, kàddu yi njiitu réew bu Sénégal dégg itam kaddu yi askan wi lopp ñetti téeméer ci milliards diggante 2012 ak 2019 ñu tudd ko ci administration mu soxal rek lu jëm ci wàllu mboota yi euh, kàddu yooyu yow nan nga ko gisee ak nan nga ko jàngate <clears throat> kaddu yu am importance la. ndaxte administration cim réew dafa am njariñ. Mm-hmm. wante administration boobu warul li nga xam ne si moo war a dem ci ré ci ci ci nit ñi administration bi aaki moo ko mhm. euh, li ma bëggoon a euh, préciser mooy président li mu wax Mm-hmm. ça concerne l'administration classique. Mm-hmm. l'administration c'est-à-dire l'administration classique parce que administration dafa yaatu. dafa yaatu mais boo jëlee même euh, administration yaatuwaayam. Mm-hmm. mën nañ wax ne ëpp na loolu. ëpp na loolu parce que y a d'autres institutions autonomes. li ñuy wax la secteur par parapublic li nuy wax aussi les institutions autonomes. yooyu boo ko xoolee man nga wax ne daanaka xayma boobu war na ko dépasser. Euh, leneen li may fàttaliku mooy euh, quelques années mën nañ wax ne même année bii ñu génn li nekkoon baa mooy salaire yi nee nañ administration sénégalaise cumuler boo ko jëlee dana àgg ci mille milliards de francs CFA. ci salaire ci salaire. Hmm. mille milliards de francs CFA boo jëlee tout salaire confondu. Hmm. boo ci yokkoo li nga xam ne si mooy carburant bi. nga yokk ci li nga xam ne si aussi mooy euh, téléphone yi mm-hmm. ak facture ndox yeeg yeneen yi mm-hmm. mën nañ wax ne daanaka lii des ci budget bi deetu bëri parce que budget lenn la mm-hmm. dañ koy xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi mooy li nga xam ne si moom la administration bi di jëfandikoo pour fonctionner beneen bi ci des mooy li nga xam ne si moom la administration bi di jëfandikoo pour fay li mu leb ci bitim réew mhm. beneen bi ci des mooy li muy delloo ci askan wi en mhm. projet et programme de développement mhm. maanaam ci secteur boo jël très bien euh, administration yàgg nga fi jaar nga fu ci mel ni ENA euh, euh, tey Mamadou si nag naka lañ def ba yegg si fii li ko waral mooy lenn mooy administration sunu administration bi dafa évoluer mm-hmm. mais ni mu évoluer mooy dañu nekkoon ci administration boo xam ne bii mën nañu wax ne machine bu ndaw la woon ñu jékki-jékki machine bi di màgg. Mm-hmm. mais jëluñu moteurs yi ak organes yi nga xam ne si moo war a ànd ak machine boobu pour mën a fonctionner correctement. Mm-hmm. ñu naan euh, mesure d'accompagnement. mesure d'accompagnement. très bien donc y a beaucoup de structures et ces structures là ñu ci bëri li ñuy def mooy bu ñuy xayma budget mhm. daanaka ci am na ci ay ay ay ay ay ay de l'État yoo xam ne si boo jëlee euh, téeméer quatre-vingt-dix pour cent maanaam fukki euh, téeméer yoo fukk yoo jël mhm. juróom-ñeent yi dañ koy def ci fonctionnement fonctionnement mooy li nga wax mooy mbirum carburant mhm. mooy mbirum oto yi mooy mbirum salaire lan mooy dellu ci askan wi dara li nga xam ne si moom la état bi waroon def bi nga xam ne si organisation administration bi changé na dafa waroon a intégrer li nuy wax la rentabilité parce que nit ki boo ko jëlee di ko liggéeyloo di ko fay war nga xool nit kooku lan la lay indil mhm. voilà mhm. et le problème de la rentabilité se pose au niveau de l' administration d'accord administration naka la war a doxee xam ne lu ni mel ko gis administration boo ko jëlee eh, maanaam man nga ne ci am réew mhm. bu fekkee réew mi ak saxaar la administration bi mooy bopp bi mooy bopp wagon yi mooy bopp wagon yi. Mhm. donc bu administration boobu doxee réew mi day daal di dox. Mhm. parce que mënoo wax koom-koom. mënoo wax euh, développement sans que administration dugg ci. Mhm. Mhm. donc administration mooy kii. Mhm. wolof njaay na day wax ne jën bu dee nëb ci bopp bi la njëkk na nëbbe. donc lu nu war a def mooy xoolaat sunu administration. foofu laay ñëw sax ndax ñi ngi wax réforme de l' administration euh, kon euh, bu ñu réformer administration wala boog lan mooy réforme de l' administration. réforme de l' administration maanaam administration dafa nekk ci li ñuy wax sëlëbe yoon. booy dox ba àgg ci sëlëbe yoon yow da nga war a xool bu baax. ban mooy yoon bi baax ci yow mhm. boo jëlee yoon bu nga xam ne si baaxul ci yow mën nga dem ci ñaay ba da ngay réer da ngay réer mhm. donc administration dafa nekk ci sali ba yoon ndaxte dañu nekkoon ci administration boo xam ne bii administration de commandement la maanaam tubaab yi ñoo ñu ko fi bàyyi loon mhm. boobu dañu bëggoon ñoo xam ne si li ñuy wax baaba commandant dañuy ñëw di jël population yi di leen wan fi ñuy jaar di leen wan lu ñuy doxale léegi nag population yooyu ci boppam dem xarale yi ni yi nga xam ne si fi nekk mhm. wan na leen li xew ci feneen mhm. donc loolu ñu doon nangu nangootuñ ko beneen euh, firnde bi wane na ñu ngi ci sëlëbe yoon mhm. mooy de dañu nekkoon ci administration boo xam ne bii lépp lu muy def moom moo koy defal boppam maanaam mairie bi ci boppam buy buy buy tonni mbalit day jënd ay ay ay camion jënd ay bagorodium euh, recruter ay personnel am pour tonni mbalit bi léegi na administration boobu mënatul def loolu parce que amatul amatul compétence bi donc administration bi il faut mu xool loolu nu mu koy defee ak ñeneen li ñuy wax le secteur privé mhm. les organisations de la société civile mhm. maanaam administration bi il faut que mu développer partenariat partenariat nag pour mu mën a am mhm. li ñuy wax naan àndandoo sa nawle donc il faut que ngeen nawlante donc administration bi ni mu doon xoolee nit ñi ni mu doon xoolee entreprise yi daf ko war a changer xool leen comme ay nawle beneen bi wundu ne aussi administration bi mi ngi ci sëlëbe yoon mhm. mooy dañu nekkoon ci administration boo xam ne bii dafa yoroon pouvoir yëpp mhm. mais administration boobu ci biir état mhm. léegi dafa am ku nekk ci kaw am ku nekk ci suuf di xëcc ki nekk ci kaw mooy le cadre communautaire boo jëlee par exemple l'UEMOA nga jël la CEDEAO nga jël l'UA ñi ngi jël ci pouvoir yi nga xam ne si moom la sunu état administration yore woon di ko jël di ko ronkon ndànk-ndànk nga jël ci suuf li ñuy wax gox-goxaat yi ñoom itam ñu ngi xëccu ay pouvoir ci état bi donc loolu yëpp day wane ne administration lu mu doon doxee mënatul continuer di ko doxee donc faaw réforme bi mënta ñàkk absolument ni ko ni nga koy waxee donc réforme bu boobu su ñëwee euh, li muy soppi dina bari kon li muy sotti dina bari ndaxte pour ñu wax réforme dañ koy xool ci ñett benn bi ci njëkk mooy administration mission la mhm. maanaam dafa am mission yu ñuy sant administration mooy le service public mhm. il y a le service public de l'éducation le service public de la santé de la justice et cetera loolu la ñuy doyee administration mm-hmm. donc l'État de manière générale léegi à partir de ces missions là mm-hmm. administration bi day tëral benn organisation benn doxaleen mm-hmm. benn organisation organisation bu il faut ñu xoolaat ko mënatul continuer ni mu doon doxee waaw il faut que ñu changer ko euh, déconcentration maanaam gox goxaat yi ñu jox leen seen pouvoir ñu boole ci yeneen acteurs yi secteur privé et cetera ci ni muy doxee. Euh, beneen bi ci des mooy les ressources de l'État. Mm-hmm. ressources yi principalement yan la. Mm-hmm. mooy les ressources humaines et les ressources financières. les ressources humaines da ngay dégg ñu ne la administration sénégalaise am na cadre yi gën a fort en Afrique tout ça c'est bien boo dégg la. Mm-hmm. mais euh, àdduna euh, bu dee dox da ngay dox ànd ak moom. li nu li nu li nu xool mooy àdduna dafa soppeeku. Mhm. donc administration bi dafa war a réformer ñun dañu copier woon ci France mais France dafay jox ay jéego ñun ñu taxaw fi ñu taxawoon. Mhm. mën naa la ci waxal benn bu ndaw. Euh, boo jëlee administration sénégalaise. Mhm. boo jëlee administration bi par corps la. corps administrateur civil inspecteur du trésor magistrat et cetera. mais au niveau de la France en un moment donné. ñoom bi nu bëggee jóge ci administration boo xam ne bii day appuyé ci ay procédures pour dem vers le résultat mhm. dañu fondre les corps mhm. faire une remise en plat yaa ngi dégg pour mhm. décloisonner pour faire ce qu'on appelle benn management d'équipe parce que pour que ngeen mën a atteindre benn objectif bu ngeen nekkee mbooloo il faut que ngeen xàccandoo doorandoo mais bu ngeen nekkee ci benn service public war koo gérer kii di xëcc jëm nale kii di xëcc jëm nale hmm. bu boobaa du ngeen mën a gaaw a àgg foofu hmm. mooy par exemple le service public de la justice le service public de la justice du affaire magistrat donc hmm. il y a les éducateurs spécialisés il les greffiers il y a les pénitenciers les administrateurs civils et cetera donc ça demande un management d'équipe maanaam mbooloo la war a doon mbooloo moomu warul am écart yu ngand ba nga xam ne si ku ci nekk da ci du ci gis boppam. très bien ñu ngay sant bu baax. di gërëm waaw beneen mu nga jeexal rapidement waaw. beneen bi ci des mhm. mooy au niveau des ressources financières. Mhm. waa ressources financières yi mooy sunu xaalis la administration bi sunu xaalis lay jël. Mhm. voilà parce que li nit ñi réer a mbir mooy administration même bu demee lebi. nan xam ne leb boobu. Mhm. nekk lu dul un impôt différé parce que dañuy jël. askan bee koy fay moo koy mujj fay. beneen bi ci des mooy. Mhm. Euh, maintenant les ressources euh, voilà mhm. les procédures. te boobaa dépenses yi dina wàññeeku bu baax a baax. day considérablement ñu lay sant bu baax di la gërëm. may fàttali ne Amadou Lamine Sy lañ doon euh, dalal mu jiite comité scientifique colloque sur la réforme de l' jaar itam fële di ENA donc administration lu mu jàng xam la ñu wéyal xibaar